autoroute euh, bi day l'accident bi fi rek euh, daal di am gis nga benn borom ja moto moo rek doon dawal ba moto bi fi mu toll nii da koo daal di sànni moom nag moo daal di daanu fee sonn na lool euh, yéen a ngi si seen télévision Public TV sëñ bi na def seen benn naataangoo dawalkat moom motoom sànni fii yéen yëpp yi ba fekke ngeen ko waaw man sama ginnaaw la toppoon mais man ma dama doon dawal mais te virage bi moo baaxul te moom li mu doon daw daa bari dafa daw rek kii bi sànni ko moom mu dem. mu mu daanu ci biir fii moo dansé. lii dafay firndeel rek ñàkkum kaaraange ci kaw tali waaw doy waar tali a def ndànk. waaw doy na waar mais man dama naan dama rek xam nga nañu doomu aadama bàyyi xel quoi mais parce que yenn saa yi policiers dañuy solal gars yi mais loolu dëgg la li police policiers solal yi dëgg la il faut nga amee kayit am sa lépp takk sa tax xam moom moo jaaru quoi yenn saa yi da ngay taxaw di si policier fekk policier ñoo ci lu ci quoi doo takk tax yoroo ay kayit Ah, pour ANCAR xool li dafa ñaaw waaye ci kaw la jógee ñu ngi koy sew man man man dama ca topp rek muy naaw man sax dama gis muy naaw dem dama ca muy naaw man maa ngi jàkkaarloo mais man xam ba tey xaw a lu ko daane xaw ma la xam ne dafa sonn wàllum sécurité googu ngay wax sax est-ce que a jiitlante woon mais ndax moom kaaraange gi nga yor ba moom defoon na ko. na gisuma mu sol casque de ñoo jiitlante mais gisuma mu sol casque te li doon daw dafa bëri te fii nii boo virage bi bu dee oto sax boo ñëwee tegg sa tànk ba mu sedd nga ànd moom ndànk mais boo dee daw lu bëri mën na laa andil problème bu dee oto sax mën na laa andil problème sama moto li oyof lii. tey problème policier yi toppee di leen sonal ci wàllu takkale taxe wala yor leen ay ay yor seen kayit lii la. lii la parce que bu la oto laalee wala nga daanu dinañ mun taxaw ko sala jàppale la mais bu amul kenn amoo dara kenn mun laa dimbali kee war a aar boppam waaw yow nga aar sa bopp balaa nguur aar sa bopp te lii du guleet de lii gisa lii boo xoolee ni bëri ajoo ni nga dafa métti bopp bi dafa dafa toj carrément te la boo xoolee mag la waaw dana waar doy waar lool lool mu doon loo xamante ne nag dañ koy gis saay su nekk ci kaw tali bi ndax euh, ñi nga xamante ne ñooy borom euh, moto yi yor deux roues yi ñu bari si ñoom duñu sàlloo ak kaaraange gi nga xamante ne moom lañ leen laaj léeg-léeg mooy waral yenn yi bu amee yëf yi day daal di metti lool waaye lu ci mënti am ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ñu ngi ci rek daal di lu ak ndax saay su nekk ñu ngi gis ne ñu ngi leen di rappeler toujours à l'ordre pour que rek ñu jël seen matuwaay si bi nga xamante ne ni ñu ngi dawal nekk ci kaw tali bi ndax lii lañ leen rek daal di bañal ñoom ñi nga xamante ne ñooy askan wi.